أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu tedd yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen ànd ak di leen ziyaara di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem ñoo ngi nekkoon ci waxtaane fadlu zikri ngëneelu zikkër zikkër nag la ca jiitu ci baat bi mooy fàttaliku yàlla mooy teewlu yàlla soo ko tudd sa làmmiñ loolu lu jara bàyyi xel la soo nee zikkër rek ku ne xalaat sa kurus mi nit mën na tëye kurusam te xelam nekkul ca la muy wax nit mën na tëye kurusam te xolam teewluwul la muy wax kon teewlu yàlla fàttaliku yàlla tudd yàlla subhaanahu wa taala borom bi ci barab yu bare ci alquran soññe na ci di ko fàttaliku ak di ko tudd inna alsalaata tanha an alfahshaai walmunkar wala dikrullahi akbar suma borom ne noosoo ak julli dana xañ nit mu def lu bon ak lu ñaaw képp koo xam ni si biir julli gi yaa ngi teewlu borom bi tabaarakallahu yaa ngi toroxlu julli googu moo lay yar moo yar sa ruux yar sa xol yar say cër ba lépp loo nekke woon ci lu neexul yàlla doo ko defati mu ni wala zikrullahi akbar wala zikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a màgg lu loolu mën ci doon foofu nag am na ci i borom jàngale ñu ko déggee neneen mais na ku teqale julli gi ak tudd yàlla gi dafa wax ni wala zikrullahi fi salaati akbar tudd bi ngay tudd yàlla ci biir julli gi moo gën a màgg lépp teqale wu leen de ndax julli ay kàbbar la ay sëgg la ay siggi la soo ko yemale woon ci kàbbar sëgg ak siggi te àndul ak tudd yàlla moog gymnastique ñoo yem képp wante nag lakka teqaleeg gymnastique mooy ci biir julli kooku ngay julli sëgg ak siggi boobu le sa xel du génn yàlla subhaanahu wa taala kooku lu jar a bàyyi xel la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na bés benn waay yuy julli ku tarde ñëw di julli dabe ma ngay wokkatu lu nekk ma ngi koy def bañ ko nekk sallallahu alayhi wa sallam dafa ni kii su xolam ragaloon yàlla loolu du ko dal daa gis ko xamante ni ma ngay julli wante léeg-léeg mu téye téléphone bi mu sone mu téye téléphone bi mu décroché ni un un yooyu mais luy luy wuyuti nit kuy téye sa kurus di wér wéet ak borom bi sa téléphone sone ku la mënti woo na di buur bi soo paree ni ko dama nekkoon ak buur di gën a mag mu yax takk benn kilifa dama ko naw jamono bi mu nekkee ci service di liggéey yal na ko yàlla jéggal nee na patron bi leen amee woon gëmul yàlla nasaraan la dafay toog ba ajjuma midi et demi mu téléphoné ku nekk sa bureau ni leen am nañu réunion à treize heures et quart ajjuma jullit bu waaj a këram ni xaaral ma dem sa liggéeyukaay ba fu ma midi fekk ma daw yow nga ne leen treize heures et quart ngeen am réunion nee na bi secrétaire bi woo ko ni ko directeur nee na am nañu réunion treize heures et quart muy ajjuma nee mu ni ko waxal ma directeur damaa ni dama am réunion ah directeur bi war ko boppam ni ko yow kan nga war a amal réunion keneen ku dul man munu ko dama am ak réunion ak yow ki la bind bind société bi munu ko désolé je m'excuse nañu annulé réunion bi na ku nekk dem julli ji kooku fulla la kon julli dafa war a am fulla am fayda lépp lu jëm ci sa wàllu pas-pas doo ko négocier doo ko waxaale mu ni ala bi zikrillahi tatma innul qulub tudd yàlla dafay dalal xol nit su jaxasoowee naqari deret énervé stressé tabaarakallah yi la yi la soof bare lool nee na tuddal yàlla moo lay faj dafay dalal sa xol daf lay may sérénité képp kuy noosoo tudd yàlla lu àdduna naqadi naqadi du mer ba meram feeñ du it kontaan ba kontaanam feeñ émotion bi muy négatif wala positif émotion bu neex mbaa bu naqadi tudd yàlla ji moo koy tënk tabaarakallaahu ndax ku kontaan ba kontaan ba ëpp daa def la waru def ku merit ba mer ga ëpp daa def la waru def zikrullahi nag moo lay dalal borom bi it mi ngi sargal ci alquran góor yàlla yi nga xamante ni laa tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillahi wa iqami salat wa itai zakat góor yàlla yi nga xamante ni jaay bi ñoo nekk ak jënd bi transaction bi yëngatu yëngatu àdduna du leen fab bi ba ñu fàtte tudd yàlla taxawal julli ak génn asaka lu wërsëg bi bare bare lu comptoir bi bare client société bi bare client bare réunion daa ci bàyyi xel am na heure yoo xamante ni da ngay dëpp lépp jox yàlla li mu moom loolu tabaarakallahu l'islam dafa ñëw pour discipliner doomu aadama yi ñu xam li nga xamante ni ñoom la ak seen moroom ak li nga xamante seen diggante la ak seen borom jox ko àq boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na xadisul qudsi la buxaari ak muslim soloo ko rahimahumullah nee na yàlla nee na ana inda danni abdi وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا يننتي بنينا صلى الله عليه وسلم يلنا سبحانه وتعالى mi ngi làqu ci njortu jaam bi ko gëm yàlla nee na xajul ci asamaanu juróom-ñaar xajul ci suufu juróom-ñaar mais mën na làqatu ci xolu jaam bu ko gëm jaam bu ko gëm ku dul fàtte yàlla di ko tudd saa su nekk di ko teewlu ne mi ngi ànd ak jaam bi saa su ko tuddee feeg ñoo ngi tudd yàlla yàlla ngi ànd ak ñun xam nga ni lii tey moo layoon feebaru jamono ji yépp crise des valeurs crise sociale jaaxale borom kër yi mooy ñàkk tudd yàlla mooy fàtte yàlla yàlla fàtte leen wal iyaazu billah nee na suñ ko tuddee ci sunu bopp si wéet mu tudd ñu si wéet bu gën sunu wéetaay suñ ko tuddee ci mbooloo mu gën ñu tudd ñu si mbooloo bu gën sunu mbooloo ndax mooy malawul aala yàlla ku mu tudd ci boppam tudd la ci biir mbooloo malayka yi texe nga nee suñu doxee def benn jéego jëm ci moom mu waaxu jël si ñu suñu waaxoo jëm ci moom tabarakallah mu daw jël si ñu kon nag wan na la ni kenn ku ci nekk war nga mën def benn effort benn jéego subhanahu wa taala dajeeg borom bi dajeeg yërmandeem yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ala uxbirukum bi xayri amalikum wa azkaaha inda malikikum وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله الإمام الترمذي موقع الصلاة يونتي بن صلى الله عليه وسلم نخدم لين وخ سين جف برموسي جن ban jëf moo gën a tedd fa yàlla seen ban jëf moo ëpp daraja gën kawe ca yàlla subhanahu wa taala jëf bi nga xamante ni moo gën soo amoon wurusu àdduna yépp nga génne ko sarax jëf boobu moo ko gën ni jëf boobu moo gën nga di jullit am sa noonu yéeféer bot ci jaasi jëm si moom moom tam mu bot ci jaaseem nee na jëf jooju moo ko gën moo gën xare moo gën saraxe wurus moo gën lu mu doon ñu ne ko yaa rasulullah ban jëf la mu ni zikrullah tudd yàlla xam nga kon sëriñ yi nga xam ni ñoom la yàlla jàll seen loxo tariqa yi teg jaam yi si yoon dañ leen tàggat ci zikrullah rek jox la laazim suba laazim ngoon wasifa suba wasifa ngoon jàng xisibu alquran julli mbooloo mais lii ku ci tënku ala kulli xaal mën nga jubóog sa borom de insha allahu taala waaw yan nañu yàlla xiir ci boppam yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam law anna rajulan fi xijrihi darahima yaqsimuha wal axaru yaskuru llah la kaana zakiru lillahi afdal ne suñ amoon ñaari nit ci benn barab kenn ki yore xaalis bu dul jeex di ko saraxe ku ñëw mu jox la xaalis keneen ki amul xaalis ma nga toog tey kursam di wax subhaanallah walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wa allahu akbar suñu noppee ka doon tudd yàlla moo ëpp tuyaaba moo ëpp yool xanaa kon wolof nee nañu borom ŋàdd yëgul borom pañe ku yore ŋàddu guro xar lekk ak ki yore pañe guro pañe guro bi mënoo si lekk dul benn kon milliardaire bi lu mu bare alal di ko joxe yow soo amee sa zikrullahi tabaarakallahu ëppalewu la moo tax nit warul ñee keneen wala fi nee ni koo ñee ñeewul boppam da nga war tey li nga amee nga valoriser ko nga sant ci yàlla yonent bi ne sala alayhi wa sallam man salla alfajra fi jamaatin summa qaada yaskuru llah xatta tatlu alshams summa salla rakaatayni kaana lahu ka ajri xijjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin limaamu tirmisi moo ko soloo yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne julli nga fajar ci mbooloo ba nga jullee ba noppi nga toog di tudd yàlla ba jant bi fenk jant bi fenk ba noppi nga jóg julli ñaari rakka ne daa am ci tuyaaba tuyaaba wu ku aj aj bu mat sëkk ak umra bu mat sëkk mu ñu tàmmatin tàmmatin tàmmatin aj bu matale umra gu matale nga janook sunu sëriñ yi ba tey soo jullee fajar ñu dëj la ni la wasifaal nga tudd yàlla nga zikrullahi la ilaha illa allah salaatu ala nabi jàng alquran jant bi fenk nga julli ñaar rakk tabaarakallahu am yool googu dem liggéey mais nit ki nelaw ba biddanti xëy si liggéeyukaay ba ak ka jóg 3 heures 4 heures du matin julli fajar ci mbooloo wasifa jàng alquran su ñëwee mënuñu yem mënuñu yem mënuñu yem yool yàlla ku màndu la kon mbokk yi la yépp ay soññ la pour doomu aadama yi ni waat bëreet tabaarakallahu bàyyi seen xel ci zikrullahi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ma min qawmin jalasu majlisan wa tafarraqu anhu wa lam yaskuru llah fii illa ka annama tafarraqu an jiifati ximaar ne ay nit su ndajaloo ci barab grand place ba marché ba atelier ba liggéeyukaay ba di waxtaan waxtaan mbiru àdduna wala mbiru diine ñoo xam wala mbiru liggéey suñu waxtaanee ba noppi waxtu wa ñuy teqalikoo suñu tuddul yàlla wax subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wala jàng salaatu ala nabi suñ ko defulee ne ñoo ngi mel la ñu nekkoon ci sunu mbalit gis nga fu ngeen mënti nekk ci àdduna ñaari nit ñetti juróom mbooloo waxtaan ba waxtaan wa jeex su ngeen dee tàggoo lu mu gàtt gàtt nañu taalal loxo ya def salaatu ala nabi jàng subhaana rabbika rabbil izzati ndax jataay boobu le xëy na jëw nañ fa rambaaj nañ fa nifaaq nañ fa wax nga loo bëggoon wax ak loo ak loo gëmul yi la yëpp boole seen ay bàkkaar yoo xam ne yëguloo ko di jàng salaatu ala nabi tudd yàlla yàlla bàll ne lu ko mooy yéen a ngi toogoon ci sënu mbalit wal iyaazu billah kon tudd yàlla jaral na bàyyi xel mu ni akfiru min azikri xatta yaqulu majnunun baree leen lu ngeen di tudd yàlla ba ñu naan ñii de seen yaram neexul waaw moom ngay gis xadaratul juma taalibi tijaan yi suñ tolloo ci laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah allah allah allah allah allah mujj gi naan hë hë hë ku fa bokkul danga naan ñii ñoom xër nañu de lii ba jàmm la day na nii ñu ni nee na tuddal yàlla ba ñu ni kii daal dafa mel naka yaramam dafa neexul wante si yaram neexul si kanamu doomu aadama yi neex na ci kanamu yàlla subhanahu wa taala yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam fekk na bi saxaaba yi ñu di zikrullahi def xalqatu zikri mu leen ah lii ngeen nekk de su ngeen ci saxee maa ngi janoog malaaka yi di saafonteeg yéen seen biir jataayu zikr boo gis malaaka yaa ngi ko peeg tabaarakallahu di bége ña toog di zikr am na bés fekk na saxaaba yi di zikr mu ni lii lu ngeen ci ay da nii ñu ne ko dañoo tudd yàlla de sallallahu alayhi wa sallam mu ni jibril ñëw na fi léegi nee na yàlla nee na ma nga leen di puukaree ca malawul aala yii yëpp tabaarakallahu i ngëneel la yoo xamante ni ah tabaarakallahu ku ci nekk war na ci bàyyi xelam di tudd yàlla guddi di ko tudd suba di ko tudd ngoon su ko defee ku daan jëw sore tudd yàlla mën na faj sa jëw ku daan rambaaj dana ko faj kuy ennuyewu ku amul loo def ku amul loo def ba ñu dama dama wéet dama géey jëlal sa kurus baa nga jàng alquran nga teewlu borom bi tabaraka wa taala yal nañu yàlla may dégg yal nañu yàlla may topp te mu jariñ ñu allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين